asalaamaaleykum mbokk internetu Dakar Buzz ñu ngi leen di nuyu di leen ziar comme nag ni ñu koy waaxee rek di amalee saa su ne xam ngeen ne Dakar bés moom lépp lu xew ci réew mi rek dañ leen koy daal di indil waaye nag rawatina ndaanaan yi nga xamante ni mbégte lay doon saa may jàkkaarlook ñoom di waxtaan ci ñoom seen métier démb ak tey tey nag ñu dalal ndaanaan bi nga xamante ni mën nañu wax ndaanaan kullu fadilin la tey ñu dalal ndaanaan bi nga xamante ni macha allah démb gisoon nañ ko fi muy bëggal suñu yaay di bëggal suñuy tante ba tey it di ñu bégal ñun ñi nga xamante ni eh, ñoo nekk ay xale ba ci xale yu ndaw a ndaw yi ñëpp koy eh, béggee tabarkàlla mën lool li muy def kooku mooy kan kooku mooy Rapathia eh, ñu bari di ko tooñee Rapathia mbay Babacar moom la ñu dalal ci aar moom nag ku ne xam na ne waa Ndar la ah, yàgg nag lool ci théâtre bi depuis 89 ba léegi wala 90 su ma juumul xam naa ne loolu dinañ ci ñëw ci biir moom la ñu dalal tey fas yéene waxtaan ak moom ci métier bi nga xamante ni macha allah ba mu ci nekkee ba tey zéro faute defu ci dara luñ koy xeebee wala defu ci dara lu ñaaw Rapathia maa ngi lay nuyu. Euh, salaamaaleykum. yëkkatil micro bi soxna Lalla maa ngi lay nuyu. Euh, di la ziar bu baax di la gërëm di la sant yow ma invité si Dakar Buzz vraiment kontaan naa ci lool ñëw fii jàkkaarloog yéen xëy na yàgg ngeen ko bëgg mais tey mi ngi dara antu tey. si kàttanu yàlla daal bëgg naa jàkkaarloo yow tey leeral lu bare. bon man nag euh, waalo waalo la nag. waalo waalo ko waaw ndar laa juddoo fa laa yaroo mais waalo waalo la sama yaay mi ngi sa kaw ga actuellement kaw kaw laa man. <laughs> dégg nga ci fier nag kaw kaw laa nag. nel kaw kaw la ñu. <laughs> ah man nag kaw sama kaw kaw laa xam man. <laughs> waaw ay kaw kaw lañ. man kaw kaw la. Uh-huh. ok d'accord mu nekk lu am solo. Euh, balaa ñuy dugg nag ci biir émission bi faaw ñu wax yi nga takk nii nga ne nga ne nga ne bi Sénégal jëlee coupe ba tey. Oh, maa ngi def maa ngi droit def sorti maa ngi droit génn te xam man dama bëgg équipe nationale équipe nationale Sénégal. bon comme Famara Diédhiou sama xarit la équipe nationale yi sama xarit lañu. donc ma takku ko nii pour bëggal ko gars yi Famara su ko gisee kontaan quoi. sama waay la quoi. wan na leen sama waay la def mu bëgg quoi Famara Diédhiou. effectivement équipe nationale ñëpp si kàttanu yàlla yàlla nañu dem ko du monde indi ko du monde bi loolu ñaan yàlla quoi yow na soxna Lalla moom mm. maa ngi lay xaar rek quoi <laughs> say question lay xaar rek mu dóor mu daanu quoi lu ma tulli rek nga loolu neex laajal loolu neex laajal loolu neex laajal <laughs> ayca mi ngi mm. noonu waaye di leen jaajëfal di leen ñaanal suñu gaynde yi comme li mu ñaan rek moom la réew mi yëpp di ñaan ah, yàlla def ñu indiwaat coupe bi ah, dëkk bi yëngatuwaat dëkk bi jax lépp neex man ku ne am ku ne am na nag sa sa féetoo mm. waaw man Sadio Mané maa ngi Sadio Mané moom sama Sadio Mané la mais nuyu ay ca grand boo nee Sadio ñëpp wax naa ñëpp wax nga Kara yi wax nga ñëpp ah, waaw ñëpp ñëpp benn lañu ku am na ko Sané Maajo waaw Maajo waaw Maajo la xam <laughs> bi <laughs> ngi noonu ay ca nañu saa su ne ñuy dalalee ndaanaan mm-hmm. euh, li ñu bëgg a njëkk a xam ci moom euh, fan la juddoo fan la yaroo fan la màggee ak njàng mi fan la toll mm, waaw euh, soxna la man maa ngi juddoo Ndar yaroo ndar diggante ndar ak waalo man man waalo waalo laa mais ndar booy seet ñëpp ay waalo waalo lañ ndar ak waalo benn lañu donc mais teewul bay naa def dem naa kaw ga bay naa def naa lu nekk loo yaakaar rek boo gisee may nekk si di jaay sama seede si mbedd mi yooyu dama xoslu quoi man yooyu ay affaire star yi dunduma ko quoi fi ma jaar dama jaar daara nekk euh, daara nekk taalibe ndar nekk taalibe muutani def naa fa daara yàgg na boobu lu may wax yàgg na. Mhm. donc nekk taalibe boobu yaa ngi nekk xale. maa ngi nekk xale di di yalwaan comme taalibe yi nu ñuy def. non taalibe léegi méttatul suñu di ma man ma expliquer nu mu mel quoi taalibe léegi dafa neex lampe yi bare na kii ndox bare na temps yooyu yëpp bare woon. quoi boobu ci àll bi ngeen doon nekk de. Euh, même boo danaa nekk Saint-Louis quoi danaa ne man danaa doxe waalo ak dëkk ak dëkk suñu dëkk ba di saa dox temps yii barewul temps yi oto barewul donc li ñuy wax rek ni boo taalibe yi man taalibe bi mu la gisee nii naa la bëgg mais du ma la yërëm quoi. naa la bëgg na ko mais du la yërëm parce que damay xam ne lii ay école la jaar jàll la quoi fi ma jaar la moo tax tey ma man di jaay sama seede si mbedd mi parce que amu benn complexe fi ma jaar comme saano armée la quoi comme armée la quoi d'accord euh, daan nga toog euh, jamono yi ngay nekk daara ji di jàng arxuraan daan nga toog ay ñaata temps doo gisanteeg sa sa sa waajur yi sa waa kër non man dama dama dama dama dama juddu rek ba fer rek mën a wax rek ñu jox sama turandoo quoi may jàngal alxuraan sama yaay li mu ko gis barewul mooy woo léegi ma doon woo léegi avant may commencé sama yaay laa doon woo man sama yaay saa yu ma xëyee dama koy woo pare maa ngi balaa maa wax ak kenn sama yaay laay woo pare donc sama yaay li ma ko daan gis barewul donc bañ fa jógee seeti ko. ñëwaat mais loo si mën dégg daal am naa fu ma jaar. xoslu naa. Mhm. comme ni gars yi di xosloo wala ma gën leen méttilee. leer laa la wax. d'accord yàlla def ma ñëw fi jóge fi dem euh, euh, Saint-Louis. Mhm. ba ma jógee Moutali Moutali laa ne woon. xam nga damay xaar sa question nag bëgguma la kar quoi waaw waaw gis nga yooyu yëpp ay question la yu eh, waaw dinañ ci ñëw mu nekk lu am mu nekk lu am solo euh, bon juste rek pour wax leen ne gis ngeen macha allah gars yi hmm. ñoom ñëpp jàng te xale yi tamit aussi ñu ngi leen di mastawu ndax léeg-léeg ñu dund euh, ci naaj bu tàng bii léeg-léeg ñu dox di yalwaan léeg-léeg euh, mooy loolu ñu ne la jàppale ma ci dara yal na leen yàlla taxawu yéen ñëpp te xam ne yoon la rek ah jàll léegi ngeen dem nekk ci leneen wut xam-xam moo mel noonu euh, ginnaaw bi nga jógee ci ci daara ji jotoo dugg ci école bi non jotuma dugg école nag jotuma dugg école man ndar laa nekkoon daara mais teewul nag xaw naa si yow xam nga xaw naa si yow quoi mm-hmm. mais daara laa jaar nag quoi. daara nga jaar xam nga jàng bu njëkk ak léegi bokkul man temps ma ngi si gars yi di jàng ndar boo amee certificat rek day mel ne BFEM quoi waxtuma la nga am en troisième mais léegi jàngu léegi xam naa ne jàngu léegi ak bu njëkk bi daal moo xam naa ne bokkul quoi. bokkul waaw d'accord euh, après bi nga jógee daara ji nga ñëw defoo benn métier. non def naa tëyër dégg naa ku mën a ñëw nga woon. <laughs> lu ma sa sol rek maa ko ñawal sama bopp kooku moom amul werante maa ko ñawal sama bopp. damay ñaw pantalon damay ñaw simis caaya loo gis rek ma koy ñaw. lu tax nga bàyyi. non donc sama wërsëg moo si newul ma dem ba gisuma si sama wërsëg ma bàyyi ko dem seeti leneen parce que tailleur boo si màggatee te amoo xaalis da nga yalwaani ñànge <laughs> moo ko si da nga yalwaani ñànge lu leer laa la wax. lu yalwaani ñànge. parce que ay boo màggatee te amoo xaalis ay mer rek ñoo lay ñëwloo ay garam bu ay nangam nangam ko màggat mu sa wër. ngay omb rek. <laughs> ngay wamb rek ngay def sama genre gi di indi dara yu xotteeku yi dara boo nekkee maire ànd ak man am rapaca ñawal ma fii affaire yooyu quoi garam baat bi fii yooyu nit da xam si bopp da ngay da ngay da xam fi ngay teg sa tànk. kon yow amoo ci woon xaalis daal moo tax nga teel a daw. Euh, waaw daal su ma wërsëg néew si daal ma teel daw quoi ma teel daw mais mën naa ko trop na quoi ko man ñëw la am. quatre-vingt-dix yi laa ko gis nga année quatre-vingt vingt mhm. na marché ndar may jàng ñëw ba quatre-vingt-deux le 19 décembre 82 mu dem Moutani si laa dugg Moutani ba 89 rapatrié si laa ñëw bu ñuy xeex ak naar yi. bu ñuy xeex ak naar mais yow grand 82 yow ma yow kii woo màggetoo. ah non yow yow ay yow ay 80 ay 88 yi ngay booy booy mi ngi fekk yaa ngi am ñaata at. non dund yi dund yi seen dund ak suñu dund moom bokkul woon ñun temps yooyu soow yi amul woon. jimbo yi amul woon. dëgg la yëpp amul woon ay saf-safal yi amul woon. temps da booy lekk cere ngay lekk ceeb boo xam ne ceeb bu baax ceeb bu neex jën yu baax ah na xam mit a gar ñoo waa lay xam ay lekk yu baax ngay lekk ay laax yu baax soow yu baax mais léegi lekk ñoo baaxatul. Mhm. su ma la waxee samay at naan c'est pas amul at am nga 60. non amaguma soixante nag mais dépassé a cinquante. ok macha allah yal na yàlla guddal fan yi ba mu nekk ay quatre-vingt-quinze. ay non damay am damay am cent ans yow nga lan. <laughs> d'accord mel nii bu soobee yàlla. Ah, après bi nga jógee ci tailleur bi defaatoo beneen métier. non defaatuma beneen métier ba mu jógee ci tailleur bi dama dem ba mu jógee Moutani dama ñëw Dakar. mais Moutani loo fa doon def. mu doon ñëw. ah Moutani nga doon <laughs> ñawee. ok ok ndar laa ñawee mais Moutani laa eggalee quoi. moom fa nga eggalee doon ñaw ku fa doon ñaw rek lay ñawal quoi. Mhm. donc mais ba ma ñëwee quatre vingt man dëkk Dakar ñaw fi tuuti dama Saint-Louis ñëwaat fa tuuti ma mujj nekk entraîneur Saint-Louis euh. donc euh, si yooyu ma gis benn troupe bu nekk foofu bu ñuy wax Jaloore troupe bu ASC la quoi ma bokk si am benn fan bàyyi bi mu ñëwaatee Dakar 92 yooyu 91 même kii ba léegi 91 92. Mhm. am benn troupe bu ñëwoon suñu koñ ma bokk si joué rôle bu ñuy wax Akilu benn buur ma réussir ko. gars yi bàyyi benn waaye ni ma du saar ak kan ma waroo bàyyi parce que yow gis nañ si yow benn avantage boo xam ne bi yow mii aar bi war nga si mën mhm. ma bàyyi ko fàtte ko dem ba benn jour gis démb bi démb bi nag moom moom formé dem moom formé. yoo të të të të të të su ma juumul boobu question la woon ay 95 la woon loolu. non démb bi avant 95 ba tax jola ba tax jola bi 92 93 94 95. waaw ñoo ko doon animé. waaw mais waaw même loolu loolu loolu tamit dugg nga yàq nga sama question loolu. ah waaw <laughs> non la. waaw mais benn la woon rek waaw waxal waxal waxal. Uh-huh. waaw mm-hmm. après nga ñëw ci démb bi. ma ñëw si démb bi. bekk benn boy bu ñuy wax Mamadou moo ñu fekk gars yi di théâtre benn fuural. man mm-hmm. ma am na troupe bu aay bu nekk fële. ma dem. waxtaan a ñoom dem bi jox ma benn rôle si répétition jour boobu sax dama ko fàtte mukk mu ne boo tëddee da ngay wàññi sa xel def wax un deux trois quatre dora commencé wax ji man ma tëdd rek naan un deux trois quatre mu ma waxuma la loolu dama ko fàtte mukk ndeysaan fa laa ba quatre-vingt-quinze nag si laa bàyyi si démb bi nag dem daaray Kocc nag mhm. fekk Pape Demba Ndiaye nag ak Cheikh Tidiane Diop nag. ak Cheikh Tidiane Diop ñu turam bokk. Mhm. bëgg cour des grands nag fa laa ko cour des grands nag. Mhm. avant loolu nekkoo woon benn rajo Ndar. non rajo Saint-Louis yow ku la wax loolu yow. waaw damay laajte rek nekkuma fa woon mais waa rajo Ndar dafa may dédicace. Mhm. Marie Malène Diallo mi nga leen dégg tey muy euh, mi nekkoon Baye Niang Rap ca Night Club américain noir la ma daan wax. dama xawoon bari solo nag faa may nekk si aar bi dama nekk star faa may nekk non li ma lay wax nii. da nga xew boobu génn dama <laughs> <laughs> jàkkaarloog Lamine nga ne boobu dagge Lamine boobu dama xew te génn gu ma. déggal loolu. dama yàgg am succès. xam nga la bës bës dafa dangay waaru. succès laa wax bi laa yàlla xam na ko. bës day ñëw rek dem. day ñëw dem loolu lay faral di wax gars yi man dama sax si xol yi. parce que Seydina Mohamed damay xool ni ñi nit ñi mel si man. kon dédicace boobu dañ la ko doon may jamono. non boobu damay rajo Ndar dañuy may dédicace chaque ay midi wala ay. 14 euh, heures yooyu di may dédicace quoi mais man nag dama daan may dédicace comme yow ma lay may dédicace di may Lamine dédicace di may ki nu mu tudd sax. Mm-hmm. Euh, sa waa ji mu tudd Omar may ko dédicace. ci mm-hmm. euh, Marie Malène di di liir lire affaire yi quoi waa région boobu yëpp xam ma région wala boobu yëpp xam ma donc benn waay moo tax mu duggee si aar bi ku ñuy wax Iba Diaw dafa ne kii xamoon naa dina nekk artiste. parce que dafa teel a am. nit ñi dañ ko teel a xam daal dañ ko teel a ràññee lu mu dugg rek dañ dama see ràññee quoi bu nekk lu am solo mais tur bi lan moo ko indi Rapathia loolu nag euh, loolu nag euh, soxna laal la euh, soxna laal lool da nga ci da nga ci taxaw nag quoi <laughs> kooku rajo Ndar laaj ñan ma ko <laughs> keneen laaj ñan ma ko meneen bàyyi noonu rek non mais na mosal ñu ci tuuti ñu non non parce que Rapathia bi demoon na ba benn jamono bu xam ne Rapathia Rapathia ba pare képp ku tuddoon mbay rek dañ lay wax Rapathia merci beaucoup ba léegi nii Sénégal ba Amérique tout dama fa bay bari ay turandoo quoi ay rapaca ay rapaca mais daal fi mu jógee pour mu wax la ko kooku dafa laaj temps. waaw mosal ma ci tuuti. non non non non non non non non non non non doy na waar rapaca doy na waar rapaca lëmb na réew mi man kan na balaa ñu yàgg ñu ci tuuti rek. non c'est-à-dire c'est-à-dire nag cest waay mas na ma ko wax man ma dama ko tuddoo noonu da daan romb di làkk anglais. te jàngoo. comme suma gars yi nii rek doom eh, am fit mënul weesu loolu buuba dan baaw eh. yàgg na fi. Eh, di si wax rapaca nag <laughs> di si wax rapaca fekk am na waa ji tuddoon rapaca di ko euh, xam fan. mais dama ci boole rapaca yi quoi. mais nag gars yi waaw. nag gars yi nag waa gars yi nag fara jógee ku mel ne Aliou Mbow benn waay gars yi di ma woowee rapaca. mais ba ma ko gëstuwaatee naa ko wax fii laa koy waxee tey nag donc ba ma gëstuwaatee Rapa Thiaw fi mu jógee benn waay benn étudiant moom ko mos a yàgg ne ma xam nga ma benn waay bu nekkoon Angleterre la nekk Angleterre mm. ku la nag mais métier yëpp benn métier moo si gën neex waaye du ma la wax métier boobu nag ah. nag mais nee na ma loolu daal la ma wax quoi mu ma moom moo bu ma gëstoo benn waaye bu nekkoon Angleterre la mais ku bëri métier la ku bëriwoon métier ku aay si métier mais benn métier boobu moo si gën benn métier ku moo si gën a neex métier boobu nag dafa xaw doy waar moom bàyyil noonu rek hmm. dafa xaw a dafa xaw a yow léegi si am kenn ko si mais métier bi comme lan la daan non bàyyi noonu def yëfu bandeem wala ah, yaa si bëgg a àgg bàyyi noonu <laughs> bàyyi noonu <laughs> da daan jël booyi wala da jël weccetu jàmm non du yooyu du yooyu du yooyu euh, nee na si li moo expliqué xam nga nag kii yam ne mais nee na métier mi yëpp jaay ki moo si gënoon neex xam a jaay xam nga lan daal fa laa yem. mooy li ñuy tux. non non xam nga c'est pas daal jaay daal moo ko si gënoon neex jaay lii moo ko si gënoon xam nga fa laa yem nag <laughs> fa laa yem quoi. d'accord euh, mi ngi noonu naka nga def ba ba dugg biir euh, euh, bateau la Joola dégg naa ci biir daan ngeen fa nekk daan bégal daan bégal gars yi lu baree bare. Sénégal Sénégal mas na neex daan naa dem bateau la Joola ma démb bi mooy animé bu ñu demee bateau bi bu départ 8 heures si guddi 20 mu dee ba ci digg géej gi ñu ñooy animé di théâtre si biir si restaurant bi ak client yi pour ñu bëgg te mu dem yàgg mu jàng léeg-léeg mu kii moo tax man <laughs> bu bi bi daanoon dama tiitu tax. parce que foog naa voyage bi waroon nga dem. mas nañu yëgoon yaram. non yëguma ko sama yaram sax mais bato mas na mas na def nii benn jour ñu ànd si bato bi. Mm-hmm. mu dem bay daanu nii def nii. jàng géej gi yëngatu yëngatu. Euh, euh, palaat yeeg yëpp a dem nit ñi def nii jafandu si affaire yi commandant bi xam capitaine bi génn non non bu leen tiit bato du daanoo nii quoi du daanoo wet quoi du daanoo wet quoi mm-hmm. te pourtant wet la daanoo yaakaar naa te yàlla rek xam wet la yàlla daanoo gis nga yu deux fu mu nekk si kaw foofu daan fu mu fu sawee noonu lan daan nekk di féexlu si kaw terrasse bi la newoon donc moom nag xam naa tax mu sawee mais bu ko fekkoon si biir ku fu nekk si biir rek da ngay liggéey parce que si biir non bata bi kër la kër la ñu daan si ñu si néeg dañ amoon néeg ak yëpp ay cabine ak yëpp dañ si amoon moo tax euh, bata bi lu ma marqué la quoi. boobu dem moo leen doon yóbbu. moo doon yóbbu si lañuy fanaan. chaque voyage da ngeen di dem. chaque voyage dañuy dem di animé di animé si biir du ma si gën a marqué benn bi du ñu joué ba amatul lu ñu joué ba sama benn copain bu sew ko man Serigne dem bi xamatu lu muy wax rek mu ni joué leen làmba ji grand làmba ji làmba ji bu ñu ko joué mu toj. rab ca ama sumeeku rek ñu siyee làmb ji bato bi toj mais li may ñaan ci kàttanu yàlla mhm. ñi deewoon si bato bi yëpp yàlla yërëm leen musal leen si mbugalum bàmmeel yàlla mën na ko yàlla def mais lu metti la man damay xalaat ni man su ma fekkoon la lay xalaat dafa metti quoi dafa metti soxna Lalla dafa metti comme noonu rek ci ci ci li a ñëw ci nga ñëw sax mm. ah, yal na leen yàlla jéggal ñoom ñëpp te xare leen aljana parce que dee ndox ku xam na ne dafa metti dafa metti waaye nag euh, ku nekk rek ñun ñi toog sax xamuñ ndax mucc nañ ci am dee non kenn mucc waaye yàlla na leen yàlla jéggal euh, oh. xare leen aljana ci barke Seydina Muhammad ñi fi des tamit yàlla na yàlla guddal seen fan ñu toog ba di ko nettali suñuy sëtt sëtt sëtaatu sët ci barke Seydina Mohamed euh, mi ngi noonu léegi après bi nga jógee ci loolu nga ñëw commencé ci Demby Fall dugg ci aar bi ah. est-ce que bi nga ci duggee amoon nga jafe-jafe ak waajur yi ak yooyu ndax euh, waalo moom xëy na ndar bari na ko mais waalo waalo yi ñu bari xam nañ ñoom dañu bëgg a liggéey mm, mm, mm. waaw yomboon na nga xëy rek ñëw ne leen dama bëgg dama commencé di théâtre est-ce que waajur yi comme teeloon <laughs> non damay euh, laaj dama lay wax rek dama lay wax rek <laughs> yombul woon quoi. Mhm. suma pap suma yaay sumay mag sumay rak kenn ma suma wax dara mais ñi seen yoon newul non soxna si metti woon na quoi. non metti woon na dafa metti man xam naa dafa metti woon quoi. ñi yoon newul ñooy wax wax yu ñàkk fayda. Mhm. ndax lii bàyyi na lii ak lii bàyyi na lii ak lii da nga daan dem yàgg da ngay da sax da ngay tànk su ma si yàlla maye ba ma egg si fii ba di si am lu mu bëgg damay sant yàlla. Mhm. mais métti woon na soxna si soxna laal la métti woon na man gëm naa ni métti woon na. mais sa yaay ak yooyu d'accord. non sama yaay mosu si wax dara sama yaay ba léegi ma woowee téléphone sama yaay nii rek la may wax moo tax avancement rek. moo tax gars yi daal ñu doon xajamal. non gars yi ñi doon xajamal man toppatoo ma leen ba si man ma yor ma waree fu ma jëm nii lu mu sore sore sore ma jëm ndar dem ba gàndong nga may wax may xaar di jëm si waat Dakar mhm. imagine toi nga jëm Tëngéej ni da ngay gëm su bopp ñu bare ngay tardé wax moo leen tardé la a wax rek arrière quoi ni da ngay avancé ba fekk fi nga egg man gëmuma lu dul yàlla laa gëm. man moo tax Serigne Cheikh Tidiane si almaktoom man mooy sama Serigne moom lay déglu. déglu baax li mu lay wax si wax wax wax mu na booy yàkkamtee doo dem. jàkkaarloo caméra nee na Serigne Cheikh Ahmad Tidiane si almaktoom na booy yàkkamtee doo dem. boo ragalee doo dem. boo nekkee si njubadi doo dem. boo amul kilifa doo dem. da nga ñeen wax yooyu mhm. te man yàkkamtiwuma ragaluma nekkuma si njubadi te am naa kilifa gu mat kilifa mhm. barke Seydina Muhammad noonu lay wéyee mhm. nit li war a am si àddinaam ni ko am rek bu gëmee yàlla gëm liggéey li mu war a am da koy am gëmal rek te bul xool nit ñi caaxaan waxkatu ñàkk fayda yi dem na ba si télé yi sax da dem gis ku ne ñu gis ñu télé bi gis ñu la te fekk ñun gis télé ba amuñu dara. Mhm. d'accord euh, loolu dinañ si ñëw mu nekk lu am solo euh, naka nga def ba dugg biir euh, daaray Kocc ginnaaw bi nga jógee ci démb bi. waaw sànq loolu laa commencé woon dama daaray Kocc dama seetaan si démb bi bi ñoom Cheikh Tidiane Diop Moustapha Diop Ndeye Mour ñoom ñëw seet seetaan si ñu ko am ñu nekkee si démb bi après nag par là si nekk si la ñu ñëw si démb bi laa ñu démb bi si la daaray Kocc ci recruter ay nit ta tontu Tafa bi si la ne woon. ñoo bokkoon troupe ak jee asu bi nekk euh, Amérique euh, xam nga jee asu ñoo bokkoon troupe ak dërëm ak ñoom sëriñ juuf ak Gold ñoom donc ñoom ñu dem waññeekuwaat man ma dem ma xëy ni dem maa ngi dem ma dem toog ba yàlla fekk si ma quoi tey fu artiste di àgg rek àgg naa fa si kàttanu yàlla namuma dara nag maa ngi jaayal sama bopp maa ngi am ñoo bëgg namuma dara mm-hmm. bu ma kenn ketal bu ma kenn wayaanal dégg bi mm-hmm. nit boo gëmee si bopp yàlla fekk si la xam nga wax naa la dama opéré temps yii le 25 novembre ki ma ki ma fay opération bi moo ma faj ma déggoo la ma forcé daf ma woo daf ma xam si mooy jaay seede bi ñoo koy wax euh, kii Malick Diop États-Unis la nekk ma soxnaam Fatou Binetou Tall maa ngi sax profité di leen nuyuwaale. mu woo ma téléphone ni ma fa nekk ma ne ko sama kër laa nekk tey dama xaw a mu laat mënoo jot ne ko hémorroïde ma ma hémorroïde faj. dañ koy faj dama opéré ko dama la dindi ko di incité affaire bi nekkati ardo la muy wax ardo ma koy opéré ardo bi nekk si làmb ji mm-hmm. maa yàlla na ko yàlla defal jàmm doole ku wér moo tax muy def la mm. waa xaalis bi Malick si boppam moo xaalis bi ardo wax ma wax bu doy waar mu ni ko ardo ñoo ma woo ma téléphone ni jox na ma xaalis bi léegi maag yow ak yàlla moo ci des su ma maag yow rek ñoo ci des kontaan waaye maag yow ak yàlla ñoo si des. moo tax euh, gëm sa bopp boo ko defee. yoon yi ngay jaar ay nit ñu baax ñoo lay fekk dimbali la te doo ñaan. Euh, moo tax may ma foofu. gis nga Malick Diop. Mm-hmm. ki la may wér ama fayam. dëgg la Malick ak soxnaam Fatou Tall ak doomam Seynabou ak Mohamed maa ngi leen di gërëm bu baax. yal na leen fi yàlla bàyyi ba sa kanam. parce que liñ ma defal. dafa rëy dafa rëy. Mhm. defal nan la ka defal ko keneen parce que bu ma ko defal woon. Mhm. yow na leen yàlla defal jàmm. allahumma amiin ay ca mi ngi noonu comme ni waxee gars yi ba tey ñu ngi fi di def lu baax de. kon maa yàlla guddal fanam te yokk xéwal. am na ñeneen <laughs> ñoo la uh-huh. may defal France lu nekk lañ may defal te ba pare naa la wax ay tur yoo xam ni ñaanu ma leen saraxu ma leen ñoo may defal man la. ñoo lay defal ay teraanga la jëriñ noonu la ma defal fekk ma jaay sama seede mu ne nga Sénégal mm-hmm. mu tibb ma ñu ndiraay mu ma jox ma xaalis boo gëmee sa bopp gars yi fekk si la. man nga xeeb ma sama liggéey bi may jaay seede bi nii moom nga xeeb ma si ñaan mm-hmm. dugg si biir ñaan du ko defal kenn. d'accord ku may xeeb si liggéey nga may xeebe mm-hmm. d'accord mu nekk lu ah. am solo mi ngi doon moom Famara kon moom it ah. na ko yàlla defal jàmm. Ah. ñu bari di wax ne daaray Kocc tas na. nga yàgg ak ñoom liggéey hmm. ak ñoom bu ñu xoolee depuis bi ay gaaf jàlle mën nañu wax 9 ans wala 10 ans ba léegi. Hmm. Euh, gisuñu ñu def dara kon bu ñu waxee ne daaray Kocc tas na ñu bari amaana mën nañu mën nañu jàpp loolu ban leeral nga ci indi est-ce que yéen a ngi déggante est-ce que am na lu ngeen di waajal tas na wala tasul. Euh, ma ma yow ñaari troupe mooy génn Sénégal yi nga xamoon. ñaata artiste moo Sénégal ay junni junni. ñi génn si télé bi ñaata la ñu. bariwul wax naa la Sénégal sànq kuy génn lañu xam booy génn si lu ñàkk a rek booy def lu ñàkk a fayda seen yoon ni ngay génn rek. daaree ko ci mosul tas Pape Dem moo nekkoon directeur poste léegi retraité na bu ko neexoon indi série mais de balaa mu indi série parce que nit ñi dañuy laaj te indi série bu am maanaa pour bu nit ñee ñu ne daaree ko ci ñëw na. Mhm. mais Pape dem mi ngi fi mi ngi liggéey incha allah te daañu génnewaat daaree ko ci tasul. Mhm. fu ñu nekkoon ba léegi fa la ñu nekk te kan moo ñu daaneel nag yàlla rek ñu a ngi ngi yéen a ngi préparé si ñaan yàlla ñu préparé waat rek ñu ñëwaat rek bis bu ñu ñëwaatee nga xam ne ñëw nañu yàkkamtuñ ko de. Mhm. parce que bu ñu ñëw dañu lu baax man su ma neexoon def série suba mais est-ce que série boobu lu Sénégal gars yi dañ ko bëgg xam nga lu gën bon si àdduna Pape Demba wax na ko. Mhm. nga bind benn pièce. teg ko tourné ko ñaari weer mu jeex gaa yi fàtte ka pièce dafa war sax si xol yi yaa ngi naan ay gaaf yaa ngi naan le treize le treize maa ko bind. xam naa loolu question la woon <laughs> gis nañ le treize yaa ko bind à part le tam aussi gis nañ ay yeneen théâtre yu xam ne def nga ko yaa doon produit sa bopp parce que moom la gis euh, ci ci ci ci li ñu doon bind Rapathia jàngul mu ngi bindal boppam. waa xam nga. beneen ba aussi gëj nañ la gis. Euh, kan moo la gis nañ ne yaa doon sa bopp da nga arrêté am na benn waaye bu ko mos a wax yàgg na quoi mu ni ma mu ni artiste la ko man mu ni lii mu am ni don la quoi xëy bu jàngoon du ko man wala mhm. déggoo ma mu ni xëy na bu jàngoon du ko man dama bind la treize teg ci table ji Pape Demba jël ko am yu si def daaree ko ci tourné ko mhm. bi laa ilaaha illallah tojoon na dëkk bi ñëpp toog di xaar la 14 <laughs> li la war ni Pape dafa xarañ man bi ma ko bindee feeyam it ma ko bindoon si waa ji manjoon bu manjoon Amadou maanaam Amadou Mbaye si fin bi da koy rey. mais Pape Demba mariage bi am. si digg si mariage bi mu fu digg mariage bi ñuy fu ñuy uh-huh. mu jox ko loxo ñu jox ko kado bi nit ñu tàccu Mbaye moo ko jox kado de nit ñi tàccu. Uh-huh. manjoon arrière rek euh, Mbaye ko gon bi ndeke Mbaye rànkiñee la. mais Pape Demba daf ko changé xam nga dafa am sentiment moom. ko mm. changé da ko mm. dafa changé fin bi. soxna si daare ko ci bokk si ñun seex moo ñu formé yal na ko yàlla yërëm. allahumma te man seex mas na ma wax benn wax boo xam ne bi moom ba si ñëw mu xool ma yàgg ma saayira man amul may tiit soxna si. Mm-hmm. amul may ragal. yéen ñëpp jàmm nag si kàttanu yàlla waaye daal li ma nekk maa ngi si liggéeyal sama bopp di daan doole te maa ngi tedd. Mm-hmm. am na yeneen série yooyu préparé di ay yeneen CD yoo xam ne yow yaa leen bind euh, ndax ni nga doon produire sa bopp ba léegi yaa ngi ci wala yaa ngi xaar ay yeneen label. merci beaucoup am na benn benn benn théâtre bu mooy def temps yi benn benn benn benn long man long métrage laay def li gars yi bàyyi laay def mu ngi tudd metti na man ku may jàppale jàppale ma foofu man du ma ñaan duma ma ku may jàppale jàppale ma samay li may li may liggéey mm-hmm. am naa benn pièce muy préparé metti na. actuellement temps yi laa ko war tourné def naa casting bi def naa tout ça léegi financement bi rek moo des ku si jàpp jàpp si waaye man duma wayaan kenn man damay liggéey ku ma jàppale jàppale su ma liggéey dama am fàtte indi scénario bi sax mi ngi sama kër def naa lépp def casting bi yàgg na moom ak sama taaw ndax moom ak sama taaw sama taaw sax laa ko tuddee Mohamed parce que bi ma koy bindee boobu ah, maa ngi door a am soxna wala amagu ma soxna parce maam am doom bu góor te di ko moom it di ko euh, pièce bi quoi. affaire bi quoi waaw. d' euh, mu nekk lu am solo kon nag gaa yi yéen ko déggandoo daw leen ngeen ñëw produire ko jàpp ci bu baax a baax a baax mm-hmm. euh, lu tax biñ la gis ci yenn série yi nga xamante ni moom mooy daw. quelle question gars yi bëgguñu ndaanaan buñ ko bëggee ñemoon leen. <laughs> lu ñu bëgg kon. non xam nga la ma la wax man li may wax dama koy wax naka ñoom ñëpp déglu. man mosuma dem si benn maison de production ni ko jël moo te duma ko def mukk du ma dem casting man ku ma bëgg a jël xam nga ma da nga ma jël si te boo ma jël si dama lay proposé loo xam yi lii boo ma ko fay lu ma joué ñoo xam ne ñu jël de ñu ñu jël xam na leen genre lalla yi la ñuy jël boo leen fayee baax na boo leen fayee baax na na la jëlal gërëfaas bi tëngal ko nii rek ni ñu gis ko yooyu doxul dañu fay gaay seen àq gaa yaa ngi te est-ce que est-ce que ñu gis ah, xam nga gaa yi artistes yi dund série mm. yaa ngi leen gis. Mm. est-ce ngi dund. ah dégg naa sa benn wax nga ne yoruñu dërëm foo ko teg xëy na am na foo ko teg moo tax dama la la ko doon paree. pour laaj sax dama leen bu leen doon série yi di mbay xaalis du ñu am dara wala kaan la ñu doon ku ci tekki du série bi moo tax nga tekki yoo xam nga ci dara danaan la vers danaan la journée cinquante mille francs nga daw dem mais ca ñaata journée ngay tourné. li nga waroon tourné si ñaari fan ñetti fan ñeenti fan si benn fan ngay tourné. si benn fan ngay tourné. donc loolu du du du journée nga jël lamiñ wala Umar ni ko journée cinquante mille ñu Umar daw ñëw yaakaar ni ñu tourné un mois bi yëpp chaque jour li ñu waroon tourné si si ay fan ñu tourné ki benn fan jox la cinquante mille day da ngay si tourné saison cent mille si am. ma lay wax nii dafa am de wala ñu la fenn mois trois cent mille nga toog 4 mois tourné si benn mois yaa ngi dégg li mu la wax. man ma toog fa léegi génne sama CD jaay sama CD chaque jour may am li ma bëgg doomu aadama ma jàppale ñoom li ñuy liggéey si par mois si 4 jours laa mais tey bu ñu xoolee artistes tey euh, mën nañu wax ne euh, peut-être li ñu am tey ci ci ci bi ñu am artistes yu mag yi comme yéen amu am amuñ benn sens amuñu dara nga am ñu amuñu sens mais tey artistes ñu gis nañ ñu bëri ñu ngi dawal ay oto yu rafet ñu ngi ñu ngi ñu ngi ñu ngi ñu ci bari ñu ngi am ay kër yu rafet. man soxna su ma neexoon am oto suba billaay sama xaalis ma jënd oto suba su ma neexoon ma wayaan suba oto am ko gars yi may ma ko gars yi dañuy wayaan rek ngaan lan gars yi di wayaan ngaan lan wayaan gu métti bi gars yi may leen oto jéppi li may oto nga am oto amoo gasoil boo sa def du ñëpp nag wax ma la ñëpp de mhm. ñenn ñi laa la wax dégg lu baax li ma lay wax man man damay wax rek ku tontu après yaa moom man sama yoon new si loolu man amul lu may ragal am oto pare di nekk si gasoil di ñaan ay boo gasoil ak yoo xam ni di amoo ah, non gis nga gars yi ni ñu naxaate quoi nañ bàyyi naxaate bi xam nga ñan ñoo ci tedd gars yi jiitu nekk ci kaw ñoo ci tedd mais ñu nu jël gagné wuñu dara problème ordonnance dañ am ak problème location xam naa li ma la wax. Mm-hmm. amuñu dara mais comme yéen bu ñu ñëwee tey seen troupe daara kocc est-ce ñu ngi leen doon fay saabu saabu bu bu bu bu kaset génnee comme ngeen doon def dinañ la fay loo xam ne da lay leer li nga joué la. man la 13 daara kocc ñi fa ëpp salaire si laa bokk le 13 500000 laa si làkk bëgguma woon sa wax tey. ci jamono yooyu. waaw si jamono yooyu ay gaaf li ma si lekk te ay gaaf feeñu moo baax dama laaj Pape dem ay gaaf li ma si li ma si fay am ñoo xam ne sëriñ yi fayul nañ ko si. gars yi lekk ñu dañu bëgg fës bëgg feeñ te ñu bu ñuy feeñ yàgg na boo benn tele moo fi nekkoon yéen sax nekku leen fi. Mm-hmm. mais nag seen classe gaa ngi fi léegi ay Dakar Buzz ay gars yaa ngi fi mu neex feeñ. Mm-hmm. yéen nag macha allah catu leen. mais yàlla moom dafa na leen kii. Mm-hmm. dafa na leen fu fu waay waxee gars yi dégg leen man xam naa loolu man xam naa loolu dama leen di xool na leen yàlla defal jàmm mais daal day mën di dégg gaa yi lekk ñu lekk ñu lekk ñu de. fu si réussir du série bi moo tax nga réussir am na leen maa la ko wax du ñëpp nag mais genn wàll gi man dafa si xam ay nit et puis benn série temps yi dama xam li si série dama doon dama xam li si série yi xam naa ko. Mm-hmm. xam naa ko. su ma la waxee rek yow sax xam nga da may da may làmbatuñu rek di di kàjj rek mais. mais xam nga. ah la Lamine. xaw ma dara de yow Omar da ngaa xam. Lamine cameraman la xam na. <laughs> Omar xamoo dara. léeg-léeg ñu dem si série yi doo tourné suba ngoon benn benn njël la benn cinquante cinquante mille nga xëy di tourné bu guddi bu waaw mais dafa ñaaw sax quoi dafa ñaaw man ku ma jël saison laay waxante yow yéen a may dégg ku bëgg a jël jël ma ku ma jël man faale ma kenn ki man ki ma faale mooy ki gëm yàlla ak di liggéey ndax doomu aadama bi man ko la faale. <laughs> mais euh. waaye non bu na ñoo xam ne bu leen yàlla jàppee. <laughs> Ah, nañu moo xam na leen. jël ñuy joué yàlla jàppee ak ñu <laughs> joué la laa ngi xaar yatam rek man bi ma xoola sama pièce bi ma bind nii may jaay nii. Mm. ma fit may takk ñeenti jabar yi. billaahi ñëpp laa fay. moo tax moom Mbarké ca ba laa njëkk fay. parce que dama ñu woon ko scénario bi xam ne yoruma xaalis mu ne ma rapatia damay tourné. sa xarit la woon. théâtre boole wu leen non sama si waaye gel sama sama gel laa wax. Mhm. laa bi mu bu ma tax ba ma ba ma jaay seede ma xam ne mën nañu fay gars yi damay jaay benn jour ñëw fay kenn sa ca ba laa njëkk fay xaalis dafa ma jox li ma wax. fay ñëpp dama laaj leen li ma leen fay jour boobu am na série yoo xam ne du leen ko fay mhm. dama fay ñëpp maa la fay ñëpp di si gagné xaalis nag maa ngi koy jaay ba léegi su ma